Euh, ci euh, euh, carrière internationale bu Wally Seck tellement de rencontres yoo xamante ni def na ko donc mën nañu am yaakaar ci artiste bi ne fi ñu dégg coon dégg fa Youssou dégg fa Ismaël ak ñeneen ñi euh, fi ñu leen gis ci ay distinction disque d'or Kumba Gawlo platine Kumba Gawlo Youssou Ndour Grammy Awards euh, euh, Wally am nañu njort bu rafet ci fi mu jëmale carrière internationale ak bijou mun nañ ci am xel bu dal Pape Cheikh ndax comme ni mu ko waxee ci woyu Faramareen bi amatuma lu may prouver te tàmbaleegu ma Sénégal moom macha allah dëbb na ko ba mu mokk mm. Wally Seck ñëpp ko bëgg amul kenn koo xamante ne Sénégal tey doo accepté nekk c'est benn star boo xam ne dëkk bi ñëpp koy seetaan léegi la question qui se pose mooy niveau international qu'est-ce qu'il vaut actuellement il fait son petit bonhomme de chemin mun nañ ko wax ndax souvent on voit Wally Seck entre les avions dem di def ay concert diggante Londres Paris États-Unis dëkk bu nekk ñu ngi koy gis muy dem di fa tëgg mm-hmm. te résultat wu loolu mooy day attiser curiosité wu nit yi nga xamante ne ñoom ñoo koy seetaan lu ci mel ni France par exemple mm. il a fait les plus grandes salles telles que Zénith def na ko euh, def na Bercy du ñëpp a fay dem et puis dernièrement li ex war a débriefé ak moom Dôme de Paris dem na fa mm. Mm. et euh, tout le monde a vu spectacle bi nga xamante ne moom la fa def ñi demul rek ñoom ñooy regretté lan moo tax fekkee wuñ ko et toujours dans le domaine international gis nañ que ay télévision dañuy intéressé aussi moom lu ci mel ni TV5 wala aussi plateau boo xamante ne touche pas à mon poste ñu ngi koy wax sànq euh, nekk émission phare en France ñëpp koy seetaan dañuy polémique ci émission bi parfois ñu apprécier leen mais euh, dañ leen di seetaan tout le temps suñu xoolee seen biir sondage yi donc il a été là-bas deux fois. Ah. joué euh, en direct français yi seetaan ko. mi ngi woon aussi RTS vous allez penser que RTS Sénégal la mais radio télévision suisse la demoon pour wane rek musique am bi nga xamante ne loolu lay def donc loolu dafay am benn ouverture boo xam ne daf ko koy se dire que Afrique moo des en Afrique il est pas en reste parce que mi ngi def ay featuring ak artistes yu gën a mag yoo xamante ne oraawam la ñu am ku ci mel ni Sidiki Diabaté ñoom Mokowé ñoom Claire Bailly Wizkid Héritier euh, Watnabe Djenka Touré et euh, Jo Mansour au niveau des États-Unis defoon nañ benn featuring euh, dégg gi Akolon def na ak moom featuring et puis dernièrement on a vu sur ses réseaux sociaux que Diamond Platnumz ñëwoon na fi donc on ne sait pas ndax c'est un featuring qui se y a quelque chose qui se prépare ñun ñun ñoo ngi xaar donc c'est pas juste des featuring pour faire des featuring ça lui permet mu am benn ouverture ci biir Afrique parce que international ñun souvent quand on y pense dañuy yaakaar ni Europe la États-Unis wala Australie mais Afrique aussi boo fi évoluer voilà Euh, da ngay day tax sa sa évolution ci yeneen dëkk yi gën a gën a gën a gaaw ba pare da ngay gis ne ñoo xamante ne même niveau bi mu am Sénégal niveau boobu la ñu am euh, seen dëkk. de ce fait moom bu xasee ba def featuring ak ñooñu rek waa dëkk boobu ñu ngi commencé di ko bàyyi xel. actuellement son objectif mooy disque d'or mais yaakaar nañ ni ci album bi nga xamante ne moom lay préparé génne en février dina ko ci am ndax déjà seetlu nañ style afro yi muy am ci yenn son mi fi mel ni Faramareen donc ça c'est assez international c'est pas quelque boo xamante mbalax boo xam ne ñun waa Sénégal ñun ñoo koy apprécier beneen style la bu gën a jege afro musique wala wala wala. musique world musique plutôt. Euh, donc ñun ñoo ngi xaar lu mel noonu ci album mais je te poser la question à savoir album bi nga xamante ne yaa ngi koy préparé en février euh, c'est un album international ban style lañ mën a fekk si biir ak est-ce que c'est Faramareen qui produit ça wala da ngay dem en collaboration ak benn maison de disque boo xamante ne mi ngi nekk à l'international. waaw album bi incha allah euh, dina bëri couleur maanaam dina def tout ba nga xamante ni Sénégal dina ci sax waaye tamit euh, ku nekk dina ko déglu. Mhm. africain bi ah tubaab bi ku dégg wolof ku dégg anglais ku dégg français dina def ba dina fexe ba nga xamante ni euh, ku ko déglu xam nga am na liggéey. yan langue lañ seen beaucoup trop même. Mm-hmm. des featuring. oui. kii. on veut tout <laughs> ah, ah, de featuring il a dit dans une interview qu'il souhaiterait avoir un featuring avec Maître Gims. c'est possible xam nañ ne Maître Gims ak Dadju. mi ngi fii pour samedi. donc est-ce que on peut espérer un featuring Wally Seck euh, Maître Gims si euh, la jonction se fait. pourquoi pas. waxoo de. waaye léegi yow da nga bëgg ñëw fii ne doo wax daal album genre euh, dinañ ko am en février y aura beaucoup de couleurs ak featuring point. waaw waaw dina bëri bagage de. waaw euh. kuy génn daal na nga génn léegi moom. <laughs> balaa balaa février <laughs> dëgg la de. mbaa da nga nar a muur ñëw wax rek. maa ko coon dégg naa day génn. saa waay père. 1500 woy <laughs> léegi bu génn na nga génn léegi. bu ñu bu ñu bu ñu desee bu ñu desee foofu Exidex on va revenir nag euh, ci Dôme de Paris parce que loolu tam sax nañu ne moo nekkoon événement de l'année. exactement premier Sénégalais bu def Dôme de Paris à son âge. il n'y a jamais eu dans l'histoire c'est-à-dire il a écrit il est inscrit mais euh, organiser lu toll ni Dôme de Paris tey Wally ça a été un challenge parce que ñi stressé woon ñi la xam dëgg ñu néew lañu parce que xam nañ ne relevé boo relever di nga ko ay ah, di ko di nga di nga ko di euh, euh, ko yëkkati waa di ko yëkkati alors euh, ñu ñëw ci débrief bi est-ce que yow li nga doon xaar ci attente bi nga defee Dôme de Paris bi nga paree sant yàlla ne ok d'accord léegi nag bu ñu fi jógee feneen liñ jëm waaw alhamdulilah Dôme de Paris échauffement eh, bi la <laughs> woon vraiment euh, may profité aussi exercice man nag dama comme yaa ma dama tàmm aas bi. moom aas la mais aas bi man waaw xam nga di gërëm waa TFM bu baax. def nañ ci liggéey bu mucc ayib. parce que nag euh, dëgg la Waly moo ko def ànd ak promoteur bi Kisma yi ñëw ba réussite bi réussite TFM la. waaw vraiment. Mm. Mm. bon su ma doon wax ah, tudd seeni ndam ci at bi bu doon ñetti ndam la mm-hmm. bii ci lay bokk. waaw am nañ ci ndam bu rëy. macha allah dañ ils l'ont vraiment réussi. côté communication déployer mooy am nga def li ci war. vraiment mm-hmm. seen équipe ñëw. Mm-hmm. ils étaient la temps ci vois c'était gros. c'est magnifique. vraiment donc ma ci gërëm bu baax a baax. Euh, échauffement la. Mm-hmm. waaw uh-huh. man dóom bi moom xamoon naa ne dinaa ko def dóom. Mm-hmm. ok moo taxit def moo taxit def nga ko dóom. def nga ko dóom waaw dama yàlla may ñu gudd fan ak tal ak wér. ñu génne album bi. Ah. liñ ciy séntu yëpp su gënee si ñun mu defal ñu ko. Uh-huh. defal ko bépp artiste. Uh-huh. Ah. li nga xamante ni mooy c'est l'intouchable. Mm-hmm. u arena hmm? ñu jël ko bi nga xamante ni Bouba jël na ko. yàggul ah. waaw Bouba jël na ko. man yooyu laa bëgg. ok man yooyu laa bëgg. ay challenge yu yu saf yooyu yu métti yooyu laa bëgg. waaw est-ce que mën na nekk man foo laa ne. Mhm. laa ne. Mhm. donc lentu cham yu arena jaaga maa ngi lay wax waajal. dama bëgg dama ko bëgg a jëli te yaa ma ne loo gis teg ci loxo bu gënee ci yow. Mhm. jaaga waajal dama bëgg jëli u arena incha allah en parlant de Diaga daguma la Diaga daf ma woo léegi Pape bëgg mhm. def témoignage par rapport ak doomam. nee na bi mu xamee ni dañ ko invité daf ma bëggoon moom bu mu mënoon dugg sa day dugg. mais nee na doom bu yaayam gërëm la. amul dara loo ah, xamante ne tey mhm. moom bëgg na ko suba ba ngoon jot te waali du ci nekk. papaam pare amul dara lu parent am yi di bëgg tey suba ba ngoon jot. moom du ci nekk déggal na leen respecté na leen bëgg na leen. teg na leen seen place donc nee na mhm. comme moom li mu ko wax rek nee na ko loo yootu bu fekkente ñaanal doomam mu dal yootu incha allah dina ko jot donc c'est message bu yaayam bëggoon jàllale te dogguma la sax lenn li ma ci sentir mooy dafa nekk waajur waaye dafa mel ni dafa bootaale ñëpp mm-hmm. xam nga yow sa doom mën na yëngu ci dara rek nga ne am naa di ko ñaanal moom kese mais danga koy déglu du benn du ñaar gémminam sama nopp ak ñeneen mm-hmm. mais buy ñaanal day jiital artistes yëpp teg ci doomam mm-hmm. te léegi ci kàllaame bi nu ma waxee rek da nga koy déglu wax na mi ngi ñaan ba ñaanaale ñeneen yi loolu aussi naka nga koy dundee waa parce que euh, je pense que loolu fii naa ko fekk. muy rafetal ak wane le bon exemple. Euh, Mado man yàqaluma kenn te yaakaar na ni kenn yàqaluma it. parce que ku ci nekk yaa ngi sa petit bonhomme de chemin di ko doxal. te ku ci nekk alaat kuli xaal li la yàlla nakkal. moom rek ngay jël ah, te euh, vraiment bu fekkee. showbiz weesu na ñun ñëpp kenn yéenewu yéenewu ci sa morom ah jàggar jàggale nga baal ma yóbbu ci armée li mm. waa donc xam nga tey ak lu mu métti métti ñun ñëpp ku ci am naqar sa morom dafa war a dem taxaw mm. donc bu showbiz weesoo on va rester sénégalais mm. sénégalais la nekk ah mm-hmm. te vraiment aussi Wally gagné waykat yëpp ñoo gagné la preuve fi ma toog nii woykat moo ko moom. yàlla loolu la dogal. mais moomatu ko moom kese. mu neex ko mu naqari ko. télévision ma Médias ñëpp a ko bokk. dëgg la. yëpp ñoo ci am ndam. dëgg tey boo ma doon laaj tey sa rêve bi gën a cher tegal ma télé duma ko jël bugguma ko. xam nga lu tax bugguma ko. am nañ télé ba pare ñun ñun waykat je préfère am benn. société wala usine boo xamante ni dinaa fa embauché ay sénégalais jeunes sénégalais ñuy liggéey mhm. parce que ñun waar bi ñu amoon mi nga xamante ni waykat defal nañu ko mhm. ok ñun dañ ko war a jàppale defal ko leneen mhm. waykat yi di am ay ndam di am ay ndam di am ay ndam